li ñu dajale fii tey nag mooy euh, euh, wane suñu naqar au niveau du village de Dougar parce que dañu gis euh, benn promoteur marocain lëkkaloo ak ay sénégalais ñëw au niveau du village de Dougar pour nangu seen suuf bu ñu remonter un peu sur l'historique c'est vrai que ñoom état bi joxoon na leen suuf au niveau de Diamniadio mais fi leen état bi joxoon mu ngi nekk actuellement fi gendarmerie Diamniadio nekk foofu moment yooyu fekk gendarmerie new newagu fa waa PICOP doon sàkk suuf le président de la république d'alors Ablaye Wade jox leen foofu une superficie de quatre-vingts hectares te bi mu leen koy jox dafa ànd ak rapport de présentation ak un décret présidentiel décret présidentiel numéro 1074 du 13 août 2010 ñu jox leen surface boobu pour ñu exploiter ko alors ñu dem ba si foofu ñu ne léegi foofu arrangé wu leen alors bu la président joxe benn suuf benn partie si suuf si si dans une localité boo demee ba arrangé wu la mais booy booy laajaat feneen da nga dellu si président ne ko fi nga ma joxoon arrangé wu ma joxaat ma feneen président defaat beneen décret jox la ko mais li ñu constaté loolu defuñu ko ñoom dañu xëy rek ñëw si suñu tool yi utiliser ay magu yoo xamante ne kenn xamul fu ñu ko jëlee defar benn TF fictif ñëw samp si suñu tool yi naan foofu moom lañ leen di jox pour ñu ñu fa seen projet. alors c'est un projet qui dure de dix ans depuis dix ans ñu ngi xeex ak ñoom pour au moins ñoom ñu wanlu juste rek. benn décret présidentiel boo xamante ne moom moo leen ne fii baaxul dem leen fële et jusqu'au moment où je vous parle depuis dix ans la société Pigop Investissement ak ñi mu àndal ils sont incapables de nu présenter benn décret boo xamante ne moo leen jële fële indi leen fii ñun on demande que sax parce que ñun ce que nous détenons bi leen indi Diamniadio c'est très clair papier bi dafa ne jox naa leen suuf jam ñaajo foo xamante ne malaisiens yi ñoo ko doon tabax mooy actuellement fi gendarmerie bi nekk bâtiment yooyu les malaisiens ñoo ko tabaxoon après le projet n'arrangeait pas Abdoulaye Wade mu arrêté mu arrêté ko bi ñuy laajee nag mu jox leen foofu bi ñu fa demee arrangé wu leen dañu war a dellu si président Abdoulaye Wade ne ko fii arrangé wu ñu jox ñu feneen mais ils ne l'ont ñëw par des tricher trichements occuper suñu terrain yi créer un un titre foncier fictif di exploiter terre bi ñun nag ñu nañ leen suñu terrain yi depuis des années et des années on a exploité ces terres-là du ñu nangu du ngeen ko foqati de façon illégale nous on des républicains nous on des hommes de droit ñu le projet mais na tegu si yoon na tegu ci yoon ñun li ñuy laaj mooy que la société Pick Up Investissement moom mu jóge suñu terrain yi wa laa bu fekkee ne mënul jóge au moins mu woote ñu waxtaan et récemment les affrontements yi am foofu noonu la demee population bi dañuy nangu waxta comme waxtaanoo ak ñun nañu arrêté liggéey bi alors les jeunes sont partis sur le sud il y a eu des affrontements mais ce qui est regrettable dans tout cela le comportement des forces de l'ordre parce que man mënuma accepter des forces de l'ordre qui son qui chargées de gérer la sécurité de la population ñu leen di violenter à ce à à, rythme-là le samedi ci fajar la ñu dugg dans le quartier de Lossa dugg dans le quartier di dajji bunt yi di dajji fenêtre yi di jël nit ñi di leen yóbbu au niveau de la de la prison ce qui fait que fajar boobu ils ont récupéré environ plus de 34 jeunes au niveau du village ñu yóbbu leen au niveau de la prison au nom de quoi cette intimidation du jàll ñun suuf soosu ñoo xamante ne ñun on l'a hérité ça fait des années ñun ñu ngi ci exploité du ñu nangu ñu koy foqati illégalement ci ci population bi Donc, en ce qui concerne la population de Dougar, la lutte va continuer. Même si nous devons, tous les jeunes de Dougar nous emprisonnés, les femmes vont prendre la relève. Si nous famille, les vieux vont prendre la relève. La relève va continuer jusqu'au dernier, au dernier, au de la population. Donc, l'OL, c'est pour attirer l'attention de l'autorité par rapport à cela. Il lance un appel à toute la communauté Safi. Si Dougar tombe, c'est toute la communauté Safi qui va que toute la communauté salafiste se, se, se, se, soulève pour dire non à cette spoliation foncière, pour dire non aux bandits fonciers.